nga xam boñu ñu tay muy ce match ak ASC Darussalam donc momu mu ci match bu nga xam dafa exempté woon ñëwaat def ben match nul yow nga génn ci ben match nul ak ben victoire mën nañu yaay pay sa si sa poule naka nga gisé ASC Darussalam wa bon alhamdoulillah euh, parce que ñom sétana naa le match passé contre euh, Fadia ñu def 0 but partout mu nek équipe bu ma respecté aussi hein parce que sen entraîneur yi rek euh, Pape Gueye ak Ousmane Sy kenn du leen lacc ci géejawaay fi ñep xam nañ leen seetaan naa leen am naa si ñoom ay enseignement daal vraiment j'espère que man ak ñoom daal dina nekk match bu neex parce que ASC bii nii ma jël mi Golf noor ak condition yi ma ko jëlee yëpp am naa yaakaar daal bu ñu rek yàlla mën nañu may ndam incha allah. voilà donc nga wax niñ ay conditions yi nga ko jëlee donc ñëpp xamee Birame Koundoul ASC euh, jamono 2 donc nga defee sa mën na ni sa cursus kii euh, sportif yëpp donc pourquoi tey nga def choix bi au lieu nga dem jamono 2 comme entraîneur nga ñëw fii. Ah. ah bonne question grand laay maa ngi lay ziar bu baax ci question bi parce que bëri na woon na polémique trop mais xam nga liñ naan fu wax àgg euh, yegg euh, weddi yeggu fa bon jamono suma équipe de cœur la fa laa defee suma cursus yëpp ma jógee fa mais bu ñu fàttee ne Birame jour du Birame encadreur xam nga encadreur dañ naan citron la rek ku la utiliser ba pare rek après da lay jeter à la poubelle bon man nag euh, maa porté sama choix génn changer air dem jàngi. Euh, wa Golf Nord tamit seen dirigeant par l'occurrence de Iba Sarr seen président yow xam nga ni mak Iba on a cheminé ensemble dañ ko fal rek bi jour bi mu nekkee président la nuit la ma woo ne ma challenge challenge la man yow laa bëgg jox équipe bi moom ak ay dirigeant di lim président Adama sen ak ay dirigeant ñoom laay ñoom ñëpp daal vraiment ñu ñëw ba suñu kër déplacé wu ci mois de ramadan bi tegal ma projet bi man tamit ma wax leen ay samay conditions ñu xool ko ne ma bu dee lii rek liggéey duñu boole Euh, respecté nañ seen kaddu man tamit respecté naa sama kaddu bi ma ñëwee nag début bi mu difficile trop parce que ñoom dañoo nekk benn équipe dirigeante bu ñëw fekk l'équipe sortante bàyyiwuñ fi dara bàyyiwuñ fi dara du matériel du xaalis du dara biñ dikkee début bi métti trop ma leen de toute façon xam nga nu ñuy def il faut qu'on travaille buñ liggéeyee nit ñi dinañ xam ni la nouvelle équipe dirigeante la dafa am bëgg-bëgg quoi te boobaa nit ñi ñooy ñëwaatal seen bopp. si je comprends mën nañ jàpp ne kon Birame du xaalis moo ko indi Golf Nord li ko nit ñi di waxee. non non non yàlla mi ma tiim xam na ni du ma waxantu man dans ma vie projet képp moo ma fi indi projet bi intéressant na ma jox leen sama kàddu ñu jox ma seen kàddu loolu moo ñu fi indi li ma si gën a ñor mooy bi may ñëw dama indaale sama encadrement indaale sama jeune frère moor Fama Koundoul fekk fi tamit Adama Ndiaye coach mi nga xam ni kenn dootu ko présenté Géejawaay ak benn grand bi nga xam ne si koñ bi la dëkk mi coach Ibou Ndiaye ñoom ñëpp daal ñu jàppal ma jàppale ma trop parce que tamit joxuñ ma bopp ba pare ci làmmiñ bien vrai que euh, man maay préparer entraînement yi maay def lépp mais loo def rek dañuy ñëw ànd si ak yow quoi euh, xam nga nit mooy li ma la wax sànq rek wax moom fu mu àgg rek weddi àggu fa mais yàlla mu ñu tiim xam na ni xale laa ndaw laa mënaguma dara defaguma fi dara damay jàng rek. te ba tey damay continuer di jàng di ñaan yàlla daal yàlla defal ma jàmm incha allah. donc ñu gis ne ren tamit vraiment bu ñu waxee dëgg tamit seetaan nañ seen ñaari match yi mu nekk équipe bi nga xam ne équipe bu joueuse la te taamuñu daan gis loolu ci Golf Nord est-ce que loolu touche bi la bon mën naa ne ñëpp joué nañ ci seen partition man joué naa sama partition ak sama encadrement joueur yi tamit joué seen partition xam nga dafay xaw a metti man j'ai été joueur encadreur boo xamante ne bii euh, li nga magee say joueur bariwul xam nga loolu ça pose un peu problème quoi. day metti trop parce que di nga dégg lu ne seen entraîneur bi la ni dafa dur kii dafa trop exigeant dafa lii dafa mais lépp lépp dama conscientiser man leen jàpp leen ni na entraîneur dañ naan ma ñun entraîneur bi contrat. du neex neex bañ jox ñu contrat jour bi rek souvent jour bi bu rek la mënal entraîneur reconnaissance du du dara reconnaissance képp. man je l'ai fait joué naa ba génn bitim réew Alassane Diallo lépp lu ma mënoon def mooy ma yëkkati benn blouson wala benn montre ne ko coach maa la ko may. amoo amuma woon fayam parce que moom mooy le coach bu ma joué loo milieu professionnel man tamit loolu laa ay nit di encadré message bi jàll nag côté boobu ma sant ci yàlla bu baax a baax a baax ñoom seen bopp koo ci toog danaan la coach bi bien vrai que dur na mais lim lay wax sa njariñ la te lim lay wax da nga koy fekk ci terrain. ma ne leen yaakaar naa ni million

te am naa yaakaar fi ñu ko jàpp nii bon buñ ci góorgóorloo rek yàlla dinañu si may ndam incha allah. voilà donc ñu gis aussi ñoom def na recrutement bu am solo. ñëpp ci ku yow bi ngay ñëw fii conditions yi lañ la teg maanaam dañuy jël coupe parce que recrutement bi ak loolu aussi est-ce que psychologiquement naka nga koy dundee. waaw vraiment nekk na question boo xam ne nag moom dafa dafa dafa dafa dëgër grand laay boobu dafa dëgër këcc quoi parce que <laughs> ak euh, Tayru Fall ak Xaadim euh, ak musaa seen bi yor xale cité parce que maa ngi ñooñu ñoo bokk benn cellule bi ñu nekk di liggéey ak cellule coach Guédiawaay yëpp quoi souvent dañ may tooñ naan ma yaa gën a métti challenge man leen lu tax loolu ñu ne ma sa équipe dañ ko laaj final man leen non non ñun on joue match par match premier match Fajaa woon jeex na deuxième match Mengo la jeex na troisième match Daaru la après li si topp nag moom ah français moko wax l'appétit vient en mangeant. donc yow suma ma la déggee bu baax tey ñoom recrutement biñ def xama nga defuñu ko pour rien. buñ gis xamné recrutement bi équipe bi pour jël coupe la donc est-ce que lo tay xaar nga waaw bien sûr parce que au début euh, avant joueur yi di ñew sax euh, xawoon naa poser tuuti question je me disais que ni fi ay gamins rek la fi fekk te boy mentalité bi fi nekkoon euh, avant ma fi ne don mentalité de gagnant ñom il se contentaient juste bokk ci compétition bu jéxé jéxna ma ñëw man la ma gaw ma loolu jamono bi ma jugee rek ñoo fa nekk champion zonal man rek gàtt gàtt en tant que joueur def naa ay final yu bëri compétition yëpp football naa ko zonal départemental régional national lépp joué naa ko joué naa ñeme challenge ren da war a taxaw daan dañoo bëgg sori daal ku bëgg sori nag mooy ah, gannaaw laay xam nga li may bëgg a sori moom bëgg nañ ko def ak recrutement bu bu aussi sincèrement parce que ak ay joueurs yu jugee fii aux alentours mais ñoom ñëpp boo xoolee ñëpp daal ñoo bokk vision ñoo bokk gëm-gëm bi te projet boobu ñu nekk nii yàlla dimbaluñu ba message bi jàll nit ñi daal euh, li ci kanam raw li gët dinañ xam daal ñun suñu bët fan lañ ko teg incha allah. sama dernière question rek mooy que xam nañ ne jamono doo nga jóge ñëw fii donc est ce que tey xaar nañ Birame Koundoul tey l' année prochaine wala année di ñëw mu dellu dëkkam. non grand <laughs> da <laughs> man daal maa ngi jàng. mangi jang dal daal euh, di di di di di def dal lo xamanteni bi wax deug neex yalla sama ambition la parce que sincèrement dal bëgg na def carrière entraîneur bu dakh carrière football ndax carrière football bi mom neex na lool parce que embrasser na presque palier yep ñam na len ku ñam nawetaan ñam championnat dem voyage ñëwaat am na jang entraîneur bi timit pourquoi pas ñaan na loolu def na suma premier diplôme yalla sutural ma ma genn major de ma promotion à Kaolack def naa suma préparation physique intégrée ñaan naa yàlla préparer sama licence yooyu yëpp daal maa ngi ci ginnaaw doyen yi daal euh, jamono nag suma jamono la mënuma ko bañ jamono tey buñ ko doon séddale dinaa ci bokk en tant que jour euh, yàlla xam na ni def naa fa lu rafet en tant que encadreur tamit yàlla xam na ni def naa fa lu rafet ñoom à leur tour nañu wëlbatiku jàppale ma. Je suis donc euh, le capitaine de l'ASC en même temps gardien équipe l'équipe. donc nous allons ko mu présentation capitaine ñu lay je fay le capitaine. di en même temps gardien titulaire de l'équipe. donc depuis que je suis à Golf deux ans je suis première année En ah, ren deuxième année je suis koñ bi quoi. donc mën nañ jàpp ne tey euh, par expérience moo tax ñu jox la brassard bi. waaw mhm. ndax bu ñu xool si nawetaan jéego amagum ma nekk titulaire en ren golf daaw joué naa fi mais yàlla dogalu noonu quoi premier tour lañ toogee ren ma ñëw def pour ñu ñëw relever le défi quoi. loolu moo ñu fi indi quoi ñu toogaat suñu. wax nga ko bi wax daaw premier tour ngeen toogee ren ngeen ñëw vraiment ñu gis équipe bi nga xam te ne bu am ambition la parce que recrutement yi donc yow naka nga gisee loolu recrutement yi moom juumu si parce que ñu ñu indil ñëpp boo seetloo euh, latéral droit bi maa ngi moom ñoo jàngandoo football depuis 2007 ba léegi ñoo jàngandoo football mu nekkoon milieu terrain mu dem ba jeu arrière beneen excentré ñu koy wax vieux su kooku tamit ñoo compété ndoroo douane maa ngi moom junior cadet man ak moom quoi amul amul nouveau quoi ay Amady ñooñu ñëpp ñu nag ñoom ñoo géewandoo ñu ñu fi indil ñëpp ñu nag ñoom ñoo géewandoo dama ne ça fait l'occasion rek waaw instant moom ñun amul lu ñu tiit amul lu ñuy ragal. donc ren lan mooy seen ambition. suñu ambition mooy jël coupe waaw. est que xam nga la mooy jël coupe. waaw xam nañ ko bu baax ndax nekkul c'est la première fois ma joué final wala joué naa final quatre fois perte ñaar jël ñaar waaw xam naa luy final. donc ngeen jëm bi nga xam ne a ne mën nañ ne tamit miin na final. muy ASC Daaru tax ku xam Daaru ci zone bi mën nañ ne équipe bu mag la donc naka ngeen di a match boobu. waaw ñu ngi joué équipe bu mag a mag a mag fa laa joué sama cadet sax. sama carrière Daaru Salaam laa ko defee defee bu ma xam équipe boo xam man xam naa la ñoom xam nañ ma bu baax a baax a baax waaw wax ji bëri trop nag Daaru équipe bu mag la mais dañ koy defara incha allah lu ñu gëm la ñun ah gëm-gëm la moo ñu indi moo tax ñu atteindre ñu bëgg a atteindre suñu bit te xam nañ ni lu mën a nekk te incha allah day nekk Daaru dañ koy dóor donc yow pression boobu lan la nan nga koy dundee ah waaw dama koy gérer ndax samay xarit rek laay tase ah. si fair play ñu ñibbisi waat jël paie. suñu objectif mooy jël coupe quoi. parce que ASC pendant trois ans mu ngi nii premier tour lay toogee te ñëpp ku xam Golf Nord xam ne Golf Nord ASC bu mag la. waaw ku jël ay cinq coupes ay départemental kooku doo ASC bu ndaw quoi am na ñu fi yàgg def ay ati ati ati ñu coupe waaw kon Golf Nord du ASC bu ndaw quoi. voilà ñu koy jaajëfal voilà euh, euh, président de ak présidente section féminine bi nga xam te moom Golf Nord comme nous avons nous rek ñëw fii tey préparé match bi nga xam contre ASC euh, Daaru Salam. donc ñu faire la nga def présentation ah asalaamaaleykum maa ngi tudd la présidente de la section féminine ASC Golf Nord comme vous l'avez ko gisee ASC baa ngi di match entre ñun bon nous espérons bien gagner comme nous l'avons fait la fois passée voilà

kon nga xam ne ASC bi ren dafa jug ak doole parce que ASC bu dem ba créer section féminine voilà loolu dama yaakaar ni lu neex la daal parce que tamit neexal nañ koñ bi xaw nañoo xumbal koñ bi aussi parce que dañ daan am vacances yoo xam ne c'est ennuyant mais tey jii bàyyiwuñu noonu am nañ ay préoccupations parce que ñoo ngi def ay réunions ñoo ngi dugg ci kër yi di laajte ay carte soutien pour ñu jàppale ñu pour suñu li nekk pour suñu ASC donc nous avons une donc euh, est-ce que vous avez un projet bi vous pour bien sûr parce que nous avons ngi d'après ce que parce que nous avons fait rien que pour cette koñ avons euh, fait ñu ngi pour euh, genre comme nous. la consultation gratuite pour pour reboisement aussi parce que nous avons fait des garab en plus xalaatuñ ci avancer de la mer bi ñu pourquoi pas tamit ñu def reboisement rien que tamit pour jàppale suñu wa koñ. donc tay ñu gis ne tay ASC bi euh dafa am ambition bees manam dafa dafa wara jël coupe naka nga gisee sen recrutement joueurs yi wala yow tamit naka nga gisee football bi. wa c'est très bien nak ndax parce que ni ma leen gisee joueurs yi actif nañ vraiment nous ngi ñi du matin au soir. voilà xamna tam ñi ngi dinañ cause am inshallah rien que pour gagner coupe donc jëm match match bi ak en tant que section féminine. nous ñun tous derrière nos nos Nous ñun ñun ñun nous nous nous soxla rek dinañ ci taxaw dinañ dem Nous dinañ stade dinañ nous nous soutenir comme nous voilà. voilà donc mu nekkoon présidente section féminine bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax. comme ñu ngi waxoon sànq ñu ngi ak le président euh, commission sport bu ASC euh, euh, Golf Nord. donc ñëw fii seen entraînement sees leen naka ngeen di waaj seen match bi nga xam moo dox seen diggante yéen ak ASC Daaru Salaam donc ñu bàyyi la nga def présentation. waaw maa ngi nuyu martu ter doomu adama yëpp maa ngi nuyu ñi seetaan seen télé bi yëpp waa Guédiawaye info. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen ganale aussi ci li ñu fekk suñu bërëb suñu di leen wane ne ngi ci ASC vous voyez que ñu ngi entraîné ñu ngi ci suñu troisième match donc man maay Adama Sène avant tout la présentation maay président commission sportive di wuyu ci ndigal aussi suñu président ASC bu Iba Sarr donc voilà c'est en voilà ku wax Golf Nord ren. ñëpp sétan nañ seen match yi nga xam déroul nañ ko premier match bi ak deuxième match bi donc ñu gis ne am nañ ay joueurs yu am qualité yu fa nekk donc recrutement bi nan la demee woon. waaw ce n'était pas facile ce n'était pas facile comme que xam nga Golf Nord du nekk ASC bu ndaw donc ASC bu ndaw donc am yàgg nañ am jaloore ci kii des fois nag peut-être dañ doon xaw a tuuti am trébuché mais dañ ñëw nag élan bu bees donc nekk une équipe jeune am bureau bu jeune yu xam football donc à l'instar suñu président tey ku ko xam xam na ci football la nekkoon bi mu bàyyee football yàggul donc ñu nit ñu nekkoon ci milieu football donc am ay di côtoyer milieu bi donc dañu am ay joueurs yo xamné xamnañ na am nañ expérience ci football té mën nañu def différence à tout moment donc recrutement bi ça n'a pas été facile mais bon yalla suturaal nañu ba am nañ équipe jeune bo xamné donc ñi ngi défendre drapeau équipe bi correctement. waaw wax nga biir wax ne recrutement dafa xawoon dafa xawoon metti donc est-ce que mën nañ jàpp ci ban côté la nekk metti won ci côté financier wala ci côté waxtan ak joueurs yi. non pas côté financier parce que ñu joueurs yalla dogal na ñi ngi am soluñu ci côté financier parce que amna na ko collaborer ak ñoom donc euh, côté aspect xam ni que j'ai ko ci équipe indi ko ci équipe bail ko mu bàyyiloo ko de mu dëkk wala bàyyiloo ko ci yenn yi mu tàmmoon nga bëgg indi ci sa nouvelle équipe day xaw a donc loolu kese loolu mais bon à part ça ñëw nañ adapté nañ ci climat ASC e bi gis nañ ne on vit bien sans pression donc euh, que l'équipe dox donc am nañ coach boo xam ne mi ngi intégrer correctement y a la solidarité qui règne ak population bi aussi les supporters donc voilà parce mën nañu attente la mooy objectif fu ASC e bi ren. waaw objectif ASC e bi ren mooy delloo ASC e bi fi mu nekkoon. ku xam Golf Nord xam ko ci jël ko ku xam Golf Nord xam ko ci niveau boo xam ne sori na donc loolu mooy suñu objectif delloo ASC bi fa nga xam ne fa la nekkoon loolu mooy suñu objectif 2014 dañ mujjee jël ko. donc 2014 à 2019 xawon nañ am en dents di ñu am progression à date de mais yalla dogal na ñi ngi doon am ay persévérance maintenant instant bi leen rek la mooy année bi mo jéem xol naka lañu délo waté buum ci mboy mboy manam jilat coupe ren lool dal moy sun objectif première d'abord avant d'accéder départemental régional etc yalla dañu gis ci côté recrutement gis na ñoo xam te ne dëkkuñu ci ASC bi est ce que mën nañ japp né base bi ci ASC bi lañ effectivement effectivement bo xolé donc ñun ren ji ni sunu base ñi fi dekk la booy xolé bu baax peut-être ñi fi dëkk dañ amone habitude di génn di jouer ji gëj nañ jouer fini depuis 3 voire 4 ans donc ñom délo ci wat leen nekkon na lu xawa jafé mais mais ñu ñëwaat nañ bo xolé dans les 11 départ wala dara di nga am lu minimum 7 yo xamné ñi fi dëkk wala voire 6 donc c'est quelque chose bien vrai nak amna ño xamné xam ñu fi mais instant mi ñu toll nii kenn gënu leen fi dëkk ndax climat bi alhamdulilah lépp sante yalla suñu borom bu baaxa baaxa baax a ran ngeen am benn coach bi nga xamné ñepp ne xam nañ ko ci football mi Birame donc maanaam nan ngeen def ba décroché ko. waaw Birame nekk na un gars loyal ah un gars boo xam ne yàgg na ci milieu sportif xam na défi un homme de défi surtout moom xam na ko ne yeneen équipe bi mu jógee ñooñu ñoo ëppoon côté financier wala dara mais moom c'est un nom de défi. bëgg na ñëw xam ah, nekk na ci un jeune entraîneur boo xoolee c'est le plus jeune entraîneur presque de de de du quartier mën na du ma ne c'est du quartier mais de tout Guédiawaye donc mu euh, boo xam ne da ko war a faire valoir am xam ne mi ngi ci moom donc yàlla dogal nag Golf noor nekk na euh, potentiel boo xam ne mën na ko ñëw exploiter ko fii nii ak moom li mu am donc ça va yàlla mi ngi ñuy suturaal début bi que mi avec sa touche apporté na on voit que ñu ngi am ay jeu équipe am jeu donc ça voit que ne entraîneur c'est un bon entraîneur kon alhamdullah réussir nañ daal suñu pari côté coaching. voilà donc ngeen jëm ci benn match bu xam yéen ak daru salam la mom mu exempté première journée bi journée bi passe, gis nañ dafa def match nul yéen ngeen def sen premier match nul ak sen victoire meun nañ ma yéen ay pay si bi donc nak ngeen di waajalee match bobu wa avec sérénité hein avec sérénité donc dañ koy jël di préparer comme match yeneen comme ñu ko waxé au début au début de la compétition ñun match par match la ñuy football nañ ci def match nu 0-0 yalla def alhamdulilah rabil alamin ñu gagné Mengo 2-0 donc ñuy sun 3 troisième match ñom exempté nañ ñëwaat seetaan nañ leen donc c'est une bonne équipe et c'est une grosse équipe aussi calibre bu baax la donc ñun alhamdulilah nous sommes jeunes équipe bureau jeune des joueurs jeunes un entraîneur jeune donc zéro pression dañ koy préparer dans les règles de l'art comme les autres matchs préparé ko ak sérénité ba incha allah rabbi di ñaan sunu borom mu may ñu ndam bu sedd guy si xol yi. ñu voilà kon ni ngeen ko gisee woon sànq rek ñëw nañ fii depuis si suba ak si ngoon mën naa di ñëw seet si fii ASC euh, Golf Nord xool ñoom naka la ñuy def seen préparation ak naka la ASC bi di de parce que gis nañu ren ne tey ASC bi am nañ benn ambition bu bees mooy jël coupe.

donc moi aussi mu wax ay projets yi nga xamanteni ni tey vraiment ñoom togu ñu côté parce que ñi ngi def li ay côté lu baax ci set setal beeg reboisement yi ak lenn li nga xamanteni ñu ngi koy def pour ket pour jappalé sen ASC donc mu nek une première fois bo xamanteni ASC bi vraiment ren am nañ ambition bu baax baax pour jël coupe bi donc c'était Laye Cissé ñëw fii ci euh, euh, terrain ASC euh, Golf Nord ñeu xol sen préparation donc di remercier ñëpp di remercier ñëpp surtout diaspora bi ñi nga xam ñu ngi nekk ci biti di seetaan euh, Guédiawaye info ñu ngi leen remercier bu baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous beneen yoon